voilà moom capitaine Ndeye Dalla mën nga présenté ñu ngi lay def xam nga waaw donc man la euh, lieutenant de vaisseau Seydina Hamza Amar donc man maay directeur de ay école de euh, la marine waaw moom capitaine tey tey jii ñu assisté si centre de promotion école marine promotion bu njëkk mën nga ñëw wax lan la lan lañ si jot a jàng voilà donc. Euh, xale yi ñu ñu formé si promotion bi njëkk di génn si école de la marine nationale promotion bu fi def ñaari at la donc septembre 2021 euh, lañ dugg si école bi euh, terminé seen formation juillet juillet donc euh, formation bu gàtt bu gàttul donc bu duggee

administration bi ñooy gérer administration bi am na spécialité euh, MSEC e am na ñu ñuy gérer partie sécurité bi dëkk ñu war am rapport ak sécurité bi ñoo ko gérer am na spécialité mécanique am na ñooy ñooy jàmbar moteur yi ak lépp luy équipement mécanique bi foofu am na spécialité électricité aussi mais aussi am na spécialité piste ak yooyu ñoo xam ne ñooy gérer lépp luy ngàndaay bi foofu

marine nationale euh, de manière générale pour ñu am ay ay ay nit ñoo xam si ci paré ñu qui nekk automatiquement ci kaw bateau yi mën fa mën fa mën fa am ay rôle et responsabilité yu leen permettre ñu ñu réussir cette mission donc lool moy lool moy mission euh, école de la marine nationale puis accompagner aussi euh, li ñuy wax en puissance de la marine nationale parce que boo les marine nationale depuis 2013 ba léegi ñoo ngi nekk si seen phase de dynamique génne ay bateau yu bees ay gànnaay yu bees a a xarañ yu gën a sophistiqué loolu moo tax après patrouilleur après am nañ en 2015 am nañ après bateau bi ñuy wax Fouladou en 2016 euh, fu mu ne nii ñoo ngi nekk di yeneen bateau gën a mag ñu am seen moo ñu permettre ak équipage yu xarañ yu pare ñu ñu formé ci école bi ñu

ci bateau yi ak force yi leen di affecté loolu moo tax

ñi nga xam si ni ñooy chef de service à bord du bateau et après année bu ñu amee bu ñu demee nekk élément yoo si dañuy am xarañte parce que ndax tradition marine ak expertise marine ñi nga xam si dañu ko dañu koy dañu accumulé pendant pratiquement euh, cinquante ans ñu leen di formé ba xam si ni dañu mën a def liggéey bi war ñu ñu yaakaar si ñoom waaw ndenkaan yi leen di def jox mooy ndenkaan yi commandant d' école bi joxe sànq mais aussi mooy si ndenkaan yi nga xam ne monsieur Tamba Diop Ndiaye Ndiaye Ndiaye joxe na ko mooy di inspirer wu d' abord ci valeur yi d' abord seen parrain parrain bi c' est quelqu' un koo xam si nii moo def na 34 ans pratiquement ci année bi koo xam si nii njàmbaarte la wane wane discipline wane patience wane courage donc loolu ci valeur yooyu dèjà dañ leen dañ leen di invité mais aussi dañ leen di invité aussi trois valeurs yi nga xam si ni moom mooy moom mooy def mooy xam si ni mooy marin valeur bi njëkk bi mooy mu nekk d' abord un marin marin dafa war a miin géej dafa war a tàmm géej dafa war a xam environnement géej marin dafa war a nekk si ni dafa war a nekk militaire pour am nga xam si ni day respecter règlement